Gabriel man nag pour man xulóori nga mën barke alquran. billaahi wallaahi. kon waa xam na jàmbaare ngeen ni man pour man xuloo xeex képp nga mën mënoo leen. lii lan la. sama yaram bi dina xeex tey di ko de xeex kay bu desee sama càmmiñ laay woo doon xeex waaye dinaa ko. xulóo de moom xam naa ne mën ngaa xuloo quatre-vingt-dix personnes. mais bàyyi naa gisoo rek ni ma réglé. dana ma war a réglé. ndax moom sax gërëm. normal de jot na. normal. ñoom nee nañ damay xuloo rek bu ma xuloo rek de baale ma rek. Moussa dama kii ñu may cokkaas. bagage bi commencé gul xeex bi tàmbalee gul fi mu toll nii dañ lay dañ lay raay nii rek dañuy bàyyi ba ba yëpp ba bagage yi wàcc ba woon ko doomu aadama yi ba pare ñu doon laaj cokkaas